jërëjëf mbokki internet yi bàyyi xel MPROD yi mbokk yi li ëpp ci membre Pastef actuellement euh, toog nañ gis ñu leen ñu wax fi situation bi toll li wa tax mara marabout de Sonko ne ma su ma noppee du mas gor am na message bu may jàllale wax ko askanu Sénégal fi réew mi toll gis ngeen Ousmane Sonko décision bi nga xamante ni justice bi noonee la bëgg doxee mu ne ma kaay ma am loo xamante ni dama ciy duut sama baaraam diggante rëbës. ak fi nga xamante ni mooy tribunal matul juróom fukki mètre mbokk yi l'heure est mais sëriñ bi dañ koy bàyyi mu nuyoog askan wi ñu soog a ñëw waxtaanee parce que kii nga xamante ne mooy juge Maham Diallo digganteem ak Ousmane Sonko am na ñu jàpp ne en daf cee nekk nañu bàyyi sëriñ bi mu nuyoo. mbokk yi tey suñ kàddu tey yi du kàddu nuyoo kaddu yu tiis la yu metti ci suñ xol mm-hmm. waaye nag yàlla mooy teg jaamam lu ko soob. Mm-hmm. te bu la tegee métit fa inna maal usri yusran inna maal usri suñ borom nee na gannaaw bi mu leen tegee tegee jafe-jafe ba pare nag bu ngeen tawakkuloo jëm ci man ma indi jàppandal tawakkul bi nag Ousmane def na ko ba sonn mu des ñiy ooye seen bopp ne patriote lañ te mën a jëf ci jëmmi Ousmane sama kàddu yi nag kàddu yoo xam ne la lancé woon naa ko depuis au trois mois au deux mois ci gannaaw am sarax yu ma fi joxe woon ñu bëri xaw ko sofantal ñu kurti kurti ba def ko ak suñuy manin ba yàlla dimbali ñu ci jamono yooyee lañ naroon ci moom antuwut woon ci jamono yooyee mais alam bii ñu nekk regretté nañu tolloog juróom-ñaari kilifa yoo xam ni ñett ñi ñu ngi dëkk ci àll ndukumaan bi duñ wax seeni tur ñoo ko leb ñaar ñi ñu ngi dëkk fi nga xam ne mooy Mali ñaar ñi ñu ngi biir Sénégal ñu ngi lebaat ci kër kilifa diina yu mag lañ nekk bi ñu waxtaanee ak ñoom ba déggoo ci juróom yi mhm. dañoo war a dugg xalwa di surgi lundi incha allah mooy suba mhm. def nañ suñ kem kàttan ak suñ kem mënin mhm. ngir jëmmi Ousmane Sonko sefewu projet bi nga xam ne indil na ko askanu Sénégal ñu jëriñu si su may wax nii nag yonentu bi moo ma gënoon a foor lu laajaan yàlla mu def ko waaye danaan toll foo xam ne du mënati ci jëf mu oolu sahaaba yi ngir ñu dimbali ko ci seen man-man ngir mu mottali projet boobu muy diine islam ba nga xam ne Seydina Ousmane ñëw jël alalam jaayante def ko ca. kon projet bi it ñun. waaw liñ ci man lépp def nañ ko. waaye dafa laaj ñaan yàlla de. Ah. dafa laaj ñaan yàlla. dafa laaj ñaan yàlla ndax waxoon naa fi ne. benn loxo du tàccu te benn lam du yëngatu. te ñaan nag ñu bëree koy def kenn du ko def. te ñun ñiñ gën a yaakaar ci ñaan yàlla regretté na leen indi leen. di leen dundal di leen jox lekk di leen jox naan di leen ñaanloo ci jëmi Ousmane Sonko ak projet Ousmane Sonko muy projet Pastef. jamono jii ñuy wax ak yéen la ca waroon ca kem sarax ca xaaj ba lu jëm ci ay nag def nañ ko mhm. am na lu ci des mhm. kum soxal ñëwal man nag sama wax man saafal yu mi wan saafal yàlla nee na mhm. ba mu waxee pare ku gëm baax na ku gëmul yaa xam man tamit sama wax ku gëm baax na ku gëmul yaa xam ndax projet bii ku ciy def sa dërëm ànd ceeg man gënoo ma koo bëgg te nag lu ma musul def laa def mooy jël sama responsabilité boppu dugal sama bopp ci àll bi xool ñi man yàlla ñi man ñaan yàlla ma yëkkat sama alal di leen ci jox téye sama course man tamit di ñaan yàlla. lan moo tax projet bi nga xeeb sa bopp ba demit jël yeneen sëriñ te pourtant da nga mën a ñaan. dégg sëriñ boo gis. am na kum wéeru wala am na kum yaakaar sëriñ boo gis nag. noonu la ñuy rabalante ba yontu ba yàlla Muhammad sallallahu la yonent bi. wala di woy sama sëriñ di yonent bi maamam. kon nit ku nekk dafa am cër bu la yàlla di may am loo xam ne dafa am ku ko yàlla di dénk Moussa. na lu ko yàlla nëbboon. am kum ko wanoon muy xudar. bi mu ko ko et pourtant yonentu yàlla Moussa moo nekkoon moo nekkoon euh, euh, yonentu lu tax mu woon ko def ko doon wan ne ko du lépp la lay may am na loo xam ne nag pour nga egg man am na su muy jaar jaam si tuuti su xeebu waaye man ñi ma regretté te jël leen xam naa ne problème buñ mas a am ma mas leen regretté jël leen ci ñaar Ousmane Sonko lañ ma ca wax comme sarax bu ñu ko defee solution génn jamono ji nag indi naa leen jël naa samay charge la ma man man danaa ko def la ca keneen man képp ku ñu contacté baax na bu bu dee ab yàqkat la wala ab kat na ko xalaatee nu ko neexee moo xam c'est na affaire mais man la ma ca man wax naa ko ku ca bëgg it ngir dimbalante dimbalante seen teeg ñun bismillah ubbil na la suñu buntu parce que nag alaaji dégg lu la bett man la te jàpp bii daf ñoo bett ñun ñëpp wallaahi daf ma bett waaye nag jëw nañ jëw nañ de kan lañ jëw man mii ak ñu mel ni man di ñaan Ousmane jëw nañ ñu waaye nag danañ jug beneen jugit bu bokkut ak jugit bii xanaa nag réew mi lu fi waaye di aaye di ko aaye doo aaye ne bul ñaanal diw ah lo loolu da xanaa xawatul xewagul ci réew mi mais ndax ñaan mën naa génne nit prison ñaan <laughs> yonent yàlla Muhammad dugal nañ ko fu raw prison tée nañ ko xeew ko takk ko ba mu taqali ko sagom mooy dof ñu baal ma ci kàddu gi yàlla yebal jibril mu wàcc falax ak naas muy tari muy tekkeeku ñaana taxoon parce que yonent bi yàlla ay yàlla yebal yàlla yebal jibril mu ko kon ñaan amul lu mënut te gëm nañ ne situation bii ñaan bokk na ci lu koy réglé du na ñaan kese koy réglé waaye ñaan bokk na ci lu rek réglé ñun comme sëriñ nag liñ man mooy situation bu tollee fu critique ñaan lañ man parce que yàlla moo ne uddu woon yi astajib lakum ñaan leen ma ma may leen waaye nag dafa sirru dafa nëbbu sirru ñaan gi mooy ci miimu lakum googu mu ga moom la ko mujj nëbbu miim googa moo jàpp Muhammad borom xam-xam yi tëgg ko ci allahu am la hëla mahadu te lañ ko tënk sëñ bi ah. xam-xam boo ko xamee doo sonn waaye nag jëw nañ ko am jot jëw nañ ko am jotu Ousmane Sonko jëw nañ ko bëgg Ousmane Sonko jëw nañ patriote pire jëw nañ koo xam ne nii maanaam Sénégal rek laay nooye Sénégal rek laa bëgg ah. gëw ma ful Sénégal bëgg ma ful Sénégal waaye nag bu ñu gisee koo xam ne espoir Afrique la espoir de monde la espoir de Sénégal la ñu jël ko bëgg ko sàkkal pexe ah danañ taxaw nag jàkkaarloog suñu borom ne ko yow nag façon bi la daan ñaane dafay tourner parce nag da ngaa tudd nga rocc sa benn tour nëbb ko ci bëri na bu leen ko siiwal te benn tur boobu di laa ilaha illa muhammad rasulullah jàngal quatre-vingt-dix-neuf tur yàlla yëpp doo ci fekk baatu laa ilaha illa muhammad rasulullah ndax lan suñ maam aadama ba mu la tooñee lekk garab ga jégaloo na xaharu jégaloo na wahabu jégaloo na rasaqu jégaloo na fataahu jégaloo na alimu xaabitun baasitun musitun muslimu alakamu ba katafin ne jeex gëstuwoo ko waaye keroog ba mu ne ba xeet gis diggante arasa kursi yu nga bind fa laa ilaha illallah muhammad rasulullah ci la ne ba xeet jug ne la maa ngi lay ñaan ci daraje soso bi nga jégal ma yàlla ne la foo xamee muhammad nga ne nga ne ko yow aadama nga ne yàlla yow ni nga fiiree bëggoo lenn lu den ak yow damaa xam na sa tur bii boo ko jëlee teg fa weneen tur tur woowee ko kawe la ci yow yàlla ne bëggeet fa mu toog ne ko jéggal na la aadama ne ko damaa bëgg nga xamal ma kii kan la mu ne ko kii ëllëg mooy ramu sa xeet wi yëpp mooy wa annahu xayru xalqillaahi kullihimi maa ngi lay ñaan ci darajay rasulillahi boobu sama maam xalifa taxawoon di ko bakk anta taaxal aminu anta shafiun maa ngi jaay ñaan ci daraja rasulullahi moomu Cheikh Amadou Bamba taxawoon di ko bakk ci daraja rasulullahi moomu alaaji Maalik taxawoon di ko bakk bu ko doon jasaan imaamu laay ak mboolem ñu baax ñi yàlla nga xettalil Ousmane Sonko. ko boo doon digle sarax bi fànq. may ma tuuti. xaajul si gannaaw kenn. waaw laqatu ci gannaaw kenn. Uh-huh. ku dul mag ñu baax ñi ma lim yow yàlla. Uh-huh. mag ñu baax laqatuwuñ kurut ci gannaaw rasulillahi su fekkee am nañ cër bu ndaw ci rasulillahi yàlla nga ñu génn ci situation yi ñu bëgg a jëm ak ñun te situation tooñ la ah. ci luñ gis parce que nag uh-huh. lu dëkk bi donte Ousmane Sonko nee nañ lam def waru koo def uh-huh. am na ñu def lu gën a piroor wuñ leen eh. Ahmed Suzanne Camara toog na fii ne nañ rey Ousmane Sonko loolu lan la appel à l'action la uh-huh. taxaw benn sénégalais taxaw ne dañoo war a rey benn sénégalais nañ ko jëlee ñu tollale lépp eh. nañ tollale lépp ñun tee Ousmane méttiwul ñu ñu tee ma méttiwul kenn ñu tee kenn kenn mais tee gi nañ koy teg ci base yoo xam ne ëllëg nañ naa ah, ñii kat tooñ nañ leen teel nañ leen diw kon ñoom buñ téye diw war nañu téye leen. beneen bi président de la république Macky Sall. ñoo ngi lay ñaan njëkk c'est la première fois nag c'est la première fois. ma ma di la ñaan. li tax ma lay ñaan nag. Mhm. yàlla moo la gën a fort fuuf. Mhm. ndax moo la bind. yoon yàlla Muhammad moo la gën a fort fuuf. ndax moo tax ñu bind ñëpp. moo ñu gën gën ko gën ko ñu gën. da daan jàpp Seydina Aboubacar. wala Seydina Omar ñëw ba ca moom. ne ko lii doo ko def. alxuraan de bu ko neexoon bu wàccee ànd ak bi waaye bu wàccee Omar lay ànd kon dëgg ku ne mën na koo for. réew mii. waaw képp ku ne lan teel Ousmane Sonko. dama la koy wax de képp ku ne teel Ousmane Sonko bëggul ëllëg boo fi jugee nga ba fi benn wëy parce que lépp loo fi defar lépp loo defar pour mu baax. boo tee Ousmane Sonko gone yi ñaanuñ ko yàlla te bëgguñ ko ñu yàq ko. kon kay nañ ko ñàkk a téye ñu ci waxtaan. buñ waxtaanee guerre mondiale moo gënoon rëy waxtaan ko waxtaan ko defar. waxtaan woowu nag day fekk nag mu tegu ci base bu boo xam ne nangu nga ñu waxtaan ak yow. nangu nga ñu waxtaan ak yow. parce que kat burul dara xaw ngaa def ci réew mi dara. def nga fi ay pont. waaw yeggale nga fi ay juma. defar nga ay nangam. waaye loole heure bu problème amee gone yàq ko. buy dëkk nii nag. kon booy dem doo fi bàyyi doo fi ba dara beneen biit it bëri nañu nekk sa biir ñooy sa noon bañ sa yoon jàmmuru ma sa am sa diggante ak Ousmane Sonko parce que ay ji jug ci la ñu gaawee di proféqué di ci xam dara di ubbi ay dossier di la ruumanaat te fekk billaahi bëggul la ku la bëgg dëgg jamono ji mm-hmm. mooy ki lay wax ooteel jàmm ci réew mi mm-hmm. ki la bëgg dëgg jamono jii mooy ki lay wax ne la indil stabilité réew mi ku la bëgg jamono jii dëgg mooy ki lay wax ne mu neex ak mu naqadi dafa war toog waxtaan woo xam ne nag njëriñu Sénégal la waaye naka ngay jëlee paaka teg ko ci poroxu nit ne kaa kaay waxtaan mënul ne mënul ne beneen bi ma koy jox sama mbokk kilifa diine yi ma tëjee foofu kilifa gu nekk càmm nga ëllëg danañ laaj noo sàmmee woon sa njaboot ñun seeni njaboot bu coow amee ñun la ñu tëj ñun la ñu dóor ñun la ñu bundu xatal ñun la ñu dóor ay lacrymogène ñun la ñu dóor ay bal perdu waa est-ce que jotul aussi tamit ngeen tamit ngeen xool seen maam càmm càmm gi ni mu leen ko bàyyee woon mooy lan toog wax ak njiitu réew mi ne ko nag ah ray gi bëri na xoxotal gi bëri na tëj bi bëri na dóore bi bëri na dañoo bëggoon kat nga delloo si jàmmi réew mi ci anam yii ak yii ak yii ba bu ko deful nag boo ëllëgee ñu xam ne def def ngeen seen wareef ndax tey sëriñ amulul taalibeem sëriñ bi bu ootee bu ay taalibee ñëwul gamam rànq sëriñ bi bu ootee ay taalibeem ñëw nag bu taalibee na nekk ci problème nañ leen sauver bi ci des waaw sarax siñ gis ma tëjee fa mu war waaw góor jox ma ko danañ génn juróom-ñetti nag juróom yi yu weex lay doon uhuh. ñett yi uhuh. yu ñuul lay doon uhuh. man Cheikh Tidiane Niass sama jëmmi bopp ak sama engagement wu bopp jënd naa ñeent nag ya nag bu ci nekk maa ngi ko jëndee juróom fukki junne nag bu nekk maa ngi ko jëndee juróom fukki junne muy sauvé un million jënd jëndal naa ko sama bopp te pour wax lu leer uh-huh. góor yàlla yooyu di ñaan yàlla ci mbir mii uh-huh. sama woy jur man bi ma jural boppam dafa bokk ci ñooñu dama ko fenal mi ngi jun mi ngi dund dem leen laaj ko uh-huh. am na génn kilifa gu mag duma jaar ci turam goo xam ne ca côté Touba la dëkk côté yooyu la dëkk. bokk na ci. ñeent ñi wala ñetti ñi. Mhm. ñu ngi ci àll ndukkumaan bi. Mhm. ñett des nag Mali lañ jugee ñu ngi ci réew mi. booy football ñu bëgg laa gagné doo nooy def. Ah, yow sax boo mënoon a bokk ci mercenaire ñu bokk ñu boole la ci. dama fay gis cuuraay bu garaaw mais neex na. dafal ndànk dégg bu ma damaa nekkoon ci lu am solo parce que yow mbiram Sonko su ma ciy wax danga bëgg a teel a déglu ma. ci làmmiñ waaw gis nga lii ma leen di wax. waaw ku gëm baax na. Mhm. ku gëmul baax na. Mhm. yalwaanu ma kenn nit. Mhm. soxlawu ma dërëmu kenn nit. ku ma ci oo it. di ma laaj loolee nuñ koy defee. danaa la jox numéro responsable boo xam ne ca koy dugal. man sama yoon newu ci. lañ ca man nag mooy dimbale ko comme ñaan yàlla. ku ne dafa am noo ma ne rek. ñun niñ ma nee. ñun niñ ma nee. mooy ñaan yàlla. parce que li tax ma leeral lii mooy. dafa am ay gone yoo xam ne dañuy nuru nuru lu ñu bëgg Sonko te bëggun ko wala ay mag may ma tuuti wala ay mag yoo xam ne dañuy nuru lu bëgg Sonko te bëggun ko nekk ci internet bi bu kilifa waxee ñu koy kàccaloo ko loo te ñoom nekkuñu lu yàqal Pastef ñun képp ko ñu xam-xam ne ciment lañ benn yoon la ñu tooy mm-hmm. tooy nañ ci Ousmane ba pare waaye nag lii ñuy wax patriote bu ne ci réew ma mhm. bi ne Sénégal bi ne Gànnaar bi ne Fuuta bi ne Murtani bi ne fu nekk kenn ku ci nekk sa wàllañ ca mhm. sa wàllu woowee nag du sëñ Seex nga koy jox mhm. boo ooyee sëñ Seex nag sëñ Seex dana la wax na def ba man a ba mën a dimbalanteeg ñun ci sarax yi ñu wax gannaaw bi ñuy jógee ñu boole ci 401 saako dugub xam nga ci nawet lañ ne 401 saako dugub 401 dafay jàpp Sénégal moom la saraxe jox ko ay néew gi doole yoo xam ne war nañ koo mën a dund ci àll ba lii buñ ko defee. yàlla danañu may ndam lu sedd guy loo xam ne danaa nag ndam ak salaamun mooy jàmm. parce que nag qul naa yaa naaru kuunu bardan wa salaaman ala Ibrahima la yàlla wax ba muy wax seddal safara sa waxu ko seddal sedd sedd gu koy gaañ sedd jàmm parce que mënoon na sedd sedd gu koy rey wala gu koy gaañ. comme yàlla nag mooy ñaan bay ñaanal jàmmam li gën ci moom ñun nañ ñaanal suñu soppi lu gën ci moom talal naa ñëpp loxo nag. lii lu war la lu wér la lu ñu war a def la. moment bi du moment wu génn. du moment émission di wax lii ak laa moment wu taxaw jàppale Ousmane sonkoo ci ñaan yàlla la. taxaw jàppale ko ci côté bu mu bu mu ko mënee. boo xam ne dana indi jàmmi réew mi. Euh, dama gis bu garaaw euh, ma gis xet gi neex. mais damaa gis nga ber ko euh, nanguwoo ko boole ci garab yi cuuraay bi bëggoon naa xam lan moo ko tax a jóg ak fonk gi nga ko fonk ak pot bi nga ko def. waaw walaa ji dëgg cuuraay bii de ñoo ko liggéeyaloon suñu bopp. liggéeyal ko jëmmi Ousmane Sonko sax laay wax. Mm-hmm. moo tax sànq ma ne jëw nañ ma. Mm-hmm. misaal nañ ma nag lu mel nii ci fan yi passé mhm. mais xamuma woon jour bi mhm. ndax parfois gars yi noonu la def dinañ la indil loo xam ne boo naree am mhm. dañ lay réeral waaye lii ci kaaraange lay dox loo xam ne buñ la ko defaralee ba pare incha allah képp koo xam ne maanaam jëp nañ ci sa kaw ak ku mën doon yàlla wan ko boppam kaaraange gi lañ defaroon ba mu baax def ko cadeau comme nii ne dañ koy yóbbul Ousmane dimbalee ko ci projet bi mu jëm. dem Kaolack ñëw dégg na yóbbu nañ ko. loolu moo mu mu mu nekk daal mbir mu ñu tiis daal vraiment alaaji dégg. waaw ah, ñu fi ñëw ba dem te waxtaanuma ak yow ci jaaro sëñ bi li am am na ba noppi te dogal ba wàcc na nii la ko yàlla bëggee nañu yàlla baal euh, mais jaaro faaw ñu waxtaan ci parce que jaaro bi nekk na loo xamante ni da nga maa ne ma nit ki du per bu ko neex rek takk yaa nga ba tey wala. <laughs> jow nañ ma wala. alaaji dégg wax dëgg na yàlla tey nag ay waxu jaaroog wàllu am amak wàllu bay rek wàllu noob ak wàllu kàddu kër gi nguur ak émori daal yooyu taxumaa jug mais am na sëñ bu per bu zone rek moo baax te da nga nit ki ku nekk am na per waaw tabia bu ne dafa am per ci jaaro mais xanaa loolu dan ci danañ ci yaatal yeneen émission waaye toj ci mais jaaro daal moom képp kuñ ko jox mu ànd ak yam war a mm. xam nañ li war a dem ci yow ak ba nga war a sol ak ba nga war a takk mm-hmm. incha allah buñ la ko joxee noppi nga ñàkk ci kaw suuf mm-hmm. lépp loo di nga ko jot lépp loo dëtmalit yàlla dana la ko dana la ko defal te dafay ànd ak kaaraange aussi tamit mm-hmm. jaaro moom yaakaar naa buñ ne jaaro rek nañ na lew na seen mm-hmm. waaye buñ ne lew nañu seen it kenn mënu cee gën a dofu maam xalifa mm-hmm. ndax ñun dañoo def ci suñu maam ba may ñu cër boo xam ne bëriwut ñu ko may bëgg laaj leen euh, kaddu kër gi sëy rek moo ko tax a jug wala kaddu kër gi day faj émorite wala liy faj émorite ak liy faj euh, kaddu kër gi euh, ba tey bokkuñ li ñuy def loolu bëggoon naa la waaw xam nga kaddu kër gi moom sëy rek moo ko tax a jug waaye dafay traité walla feebar bi tax góor di gaaw jot boppam. parce que góor ñett danay tax mu gaaw jot boppam. jabet da koy def parce que dañuy limité li ngay lekk. beneen bi ci def mooy émorite da koy def beneen bu ci def ndoxu siti da koy def. ñett nag bu teree góor du taxee goor di gaaw jot boppam maanaam traitement bi mooy kàddu kër gi mooy. enrobe kake bi ngay gis dafay ànd ak aussi tamit tamponem parce que clinique bi lépp lu ñu la jox day ànd ak tamponé dafay am ñett garab ci biir benn bi. Mhm. mooy defar ndoxum man yu bi. Mhm. mooy li ngay booy jot sa bopp. maanaam li ngay jot day tuuti ndox bi. Mhm. mooy tax doo am doom benn bi. dafay defar sidit yi. parce que góor bu jugalee dafa war am centimètre yu mu war a jot pour mën a jot bànneex ku jigéen ki. benn des po bi ci nag moom mooy buñaay parce que boobu mooy rëyal bi. bu fekkee li nga yor dafa daf koy rëyal. voilà loolu moom moo nekkoon kii bu fekkee hémorroïde la nag moom kook spécial la ci ñaari fan laa koy faj. ku yor hémorroïde bu génn. tale laay waxee ñëwal ma jox la sunguf bii ngay gis nii da koy taf ci gannaaw booy tëdd boo yeewoo mu toj ko amul tey suba de bu la ko joxee léegi nga def ko ci léegi boo yeewoo mu toj mu toj tab bi complètement te doo ko gisati su ko defee ngay naan reen yi mooy camp bi mu mu faj ko dévitissement mm-hmm. parce que ndoxu siti ak ak émorite danay tere say góor mm-hmm. euh, tey nag boo déggee ni ma waxee sax dégg nga xam ne vraiment mm-hmm. wax ci clinique ak ci wàllum paj taxuma jukk waaye wax lii raam ci sama waa ji mu nar a ñëw ci moom te mën koo défendre ci ñaan yàlla waaye nag ci biir défendre boobu ma ma koy défendre war naa mën a am lu nekk ngir dimbalee ko ci parce que nag li may wax man kenn mën naa ko waaye nag boo raxasee mbool ba mu set nga def cam ñam sañoo fekk ñu toog ci salle bi nga leen kaay ñu añ et pourtant boo lekkoon bool bi yow kenn da nga suurde bu ñëwee di nga suurde waaye ñu ñëw nga am ci teyaa ba moo gën moo tax buñ gisee luy raam di ñëw ci Ousmane ñu mën a demee fu nekk réew ak di ko dimbale laaj na nag yenn responsabilité yi lu mu lu mu ñaan daf ci am wàll ndax suñ sëriñ sii ku leen di caaxaanee xamoo ci li nga nekk ñaan yàlla ku koy caaxaanee xamoo ci loo nekk ñaan yàlla nag ku ko mën dëgg laa wax du ñun ñaan yàlla mooy suñu métier te li may wax toujours rek bépp soxla boo xam ne du mooy yàlla du yàq mbokk dugg suñ nopp bii te fajuwul gisaguñ ko parce que nag ñu ngi ñaan yàlla chaque jour bu ñuy jëflanteeg moom ci teew bakkan ak siraatal mustaqim ma tëjee ci cuuraayu ubbeeku bi li tax ma koy wax mooy. dama bëgg patriote am. Mhm. damaa bëgg ñu am. ndax ñun bu ñu amee réew mi jàkk. bu ñu amee defar réew mi. bu ñu amee defar. <laughs> yow El Hadj yow. non non foofu ñun ñun ah, patriote patriote buy taal gisoo ko. voilà gënal ci détail yooyu noonu. Ah. ok lii pour ubbeeku la. Ah, ki cuuraay bii ñu ko defaree coton. képp ku ko jël. di nga ubbeeku ba tiic sa bopp. képp ku tëju woon ñëwal nga jël cuuraay bii nga xool. Mhm. li tax ma defal ko rek ci at mii yéene leen ko. Mhm. lu lenn lu dul damaa xam ni. Mhm. bëri na lu nit bëgg lijjanti ñàkk ñàkk moo tax moo ko lijjanti. te ñàkk yàq na lu bari. ñàkk yàq na lu bari. am ku ne ma man soxlawuma lool man damaa bëgg bayra bi nga am. wala bi sa waa ji am. wala bayre bi ma bi bëgg am amaguma ko nga place wala ngay jaay dara mais la kaa nga jël cuura parfum bayre bi parfum bi mooy parfum Youssouf parfum bi wàccu Youssouf lañ ko tuddee mooy kanamu yonent Yàlla Youssouf ku koy laal foo aw ñu bëgg la loo wax dina sopp nit ñi fépp foo jublu yiwu yàlla jublu fa parce que doomu aadama man nga am ay milliards te kenn du la bëgg man ngaa nekk homme d'état te kenn du la bëgg may man ngaa nekk opposant adduna bi bëgg la xool ko sama waa ji ku sañoon ku nekk ci état jamono ji ku sañoon am li am am li mu am ku sañoon mel ni mel waaye da ngay ne yaakaar ne leneen li wax naan diw duy ñaanlu wala du ñaan nga gëm ko fii ñëppay ñaanlu ñëppay wuri wuri seen oto yi guddi di ñëw ci kër sëriñ si kon jug leen ci seen bopp kaaraange taxaw leen ci jamono ji nag jamonoy kaaraange la jamonoy kaaraange laay nekk foo laay tëjee dégg jamonoy kaaraange lañ toll réew mii jamono ji ku amutoon kaaraange dawal nga uti ko fii vingt 2024 lu ne mën naa xew ci réew mi te boo amul kaaraange nag yërëm naa la ut leen kaaraange. ut leen kaaraange ut leen kaaraange. ut leen kaaraange. li tax nag may insister fi ut leen kaaraange. bëri lu bëri lu ñu gis muy ñëw. te yéene wuñ ndaw ñàgg ca. force de l'ordre yi takk der yi. gën leen ut lu ñaan yàlla. ndax ñu ak yéen ñoo bokk réew mi. ut lu leen ñaan yàlla ut kaaraange yéen it ndax nag yéen a yor suñ force de l'ordre yéen suñ sécurité te it jàmm ju ne nañ ko war a ñaanal population bi lañ leen ko war a ñaanalee waaye nu ñu yéene population bi ak mucc noonu lañ leen war a yéene ak mucc état Macky Sall bii. ñi ci nekk jamono jii. ñu ci bëri nañ daw uti kaaraange. li tax ñu koy wax nag bëri na lu ñu gis. waxuñ luñ foog wala lu ñu yàlla wan nii ñu gis ku muy ñëw. te bëgg nañ nag képp kuy mucc sénégalais mucc. ndax na ñun ñëpp ci réew lañ bokk. waaye nag képp koo xam ne patriote nga. patriote patriote sur Pastef. ñu ngi lay ñaanal kaaraange. kooku moom duñ leen wax uti leen ko dañ leen koy ñaanal. di sàkku ci yàlla mu xaar leen xaar mboolem koo xam ne projet Pastef ñor na la aar mboolem koo xam ne Ousmane Sonko ñor na la yal na yàlla jàmmal Ousmane Sonko nam jàmm jàmmale woon yonent yàlla Youssouf ca kaso ga ba amu fa benn jafe-jafe yal na ko ko jàmmale te génne ko ci lu mu a gaawee nag côté bu mu ko mën a génne na ko génne ñun daal na génn rek la bëgg lañ bëgg feedu këram sàcc ji ci réew mi bëri na raykat yaa ngi fi jaaykatu dorog yaa ngi fi jaaykatu yàmbaay yaa ngi fi ñiy def ñaaw téef a ngi fi nañ xooli ñooñu ñu bàyyi Ousmane sonn na nañ ko ba ñu oote jàmmi réew mi sëriñ si nañ génn wax ci jàmmi réew mi réew mi nag toll na foo xam ne ku artu di nga atte nañ teel artu balaa dara di xew. ay coo dégg ngeen dafa maam Khalifa Niass euh, waxtaan wu am solo yi mu waxtaan tey mu nekk waxtaan woo xamante ni soo ko déglee xam ne euh, bi muy wax xolam tooy na li tooy ci moom yaakaar naa loolee fa mu jugee ci moom sori na mbëggeel dafa foor am na sax ñu ne weñ guy taaweeku la ñaar ñu jàpp ku bàyyi lor sa morom mbokki kii du bàyyi Sonko Sonko du ko bàyyi. su ma naree bàyyi jëmmi Ousmane Sonko di ànd ak beneen politicien fi laa koy waxee. billahi wa rabbul kaxbatu ma xàcc li ma doon. barke Cheikh Naama Tidiane. Ousmane toppewu ma ko xaalis. kóllëre laa ko toppee wa aw fuu bil ahdi innal ahda kaana maf yàlla nee na ay nit bu ñu jëflante seq leen kóllëre man yàlla ngeen jël ma témoignage jël naa yàlla muy témoignage sama diggante ak Ousmane Sonko su ma naree bàyyi suñ suñ ma doon jël paaka di ko teg sama pour ki dama baal Ousmane Sonko wa rabbul kaxbatu du ma ko bàyyi. parce que damaa yéene jàmm. ku yéene Sénégal jàmm bëggal Ousmane Sonko ah. kon ni mu demee rek moo tax mbir mi demee nii su demeewul woon noonee lii nii du demee nii mbokk ñu doon topp ñu suivre ci MPROD yi yàlla na ngeen bëri jàmm ci daraja Muhammad Rasulullah